day am yu lay reeloo booy déglu nit ñi bu dee ci Omar Youm koo xam meetal lañ koy wooye su ma dikkee di wax ci moom wala may eh, taxaw seetlu ci moom jàpp naa du ci wàllu xam-xamam du ci wàllu méngale wala di ko koris ci loolu waaye ci wàllu xel ak dëgg ci loolu lañuy ñuy korisante Omar Youm ku ñuy wax nen ne nekkool seen TV bokkut ak nenn Fatimata may nekkoon ak euh, a Buso te nekkoon ministre bi nenn bi nekk ci euh, Sen TV la moo ko invité seen jataay euh, di ko laaj question yu bare bare nag wax ko ci dialogue bi laaj na ko ci yu bari daal ci kii laaj ko yi tamit moonu mm, nu xamal ne Ami Njaay ñii bi male am na doom yàlla na ko yàlla defal doom jukki ndax naa doom ju am histoire lay doon nag ñu euh, histoire da koy bind ci Sénégal dëgg la yaayam dafa dafa dafa xare ba daan daal <laughs> laa bëgg a wax ma dafa xare ba daan wala nu mu yal na ko yàlla tefal ko ci ak wér te yàlla euh, def xale ba muy euh, yaakaari Sénégal liggéeyal Sénégal dara benn bi ma ci bëgg a wax Omar Youm dafay wax ci troisième mandat Omar Youm bu ngeen seetloo ci ñi Pape Alé njëkk dalal laaj leen ci mbirum troisième mandat ndax président Macky Sall mën na koo def moom dafa wax ne président mënu koo def mandaam mi ngi nii jeex na laaj bi nag bi mu dikkaatee dafa mel ni da nga dut xool ne Omar yum lam doon wax bu njëkk ci xam-xam la ko tegoon ak lii muy tontu ci xel la ko teg wala ci log logal ci log la ko teg ba mënta logg logal ba logg logal te ko ndax bu fekkee moom moo taxawoon fii at yi ñu génn làkk ko ci français ni eh, nul ne peut faire troisième mandat yàpp naa noonu la maa ngi jéggulu xaw ma xaw ma ko dama bëgg rek répéter li mu waxoon bu fekkee jum naa ñu baal ma waaye lu mën a am rek moom moo taxawoon mu Pape Alé mu jël responsabilité am ne loolu laajaat nan ko ne ko dialogue bi ndax troisième mandat bokk na ci li indi situation réew mi fii mu toll mu ne président Macky Sall eh, xam nga ñun atte dafa am nit ki mën naa am sañ-sañ bi président wane ne lii mooy sañ-sañam keneen wane ne lii mooy sañ-sañam waaye kii atte mooy diw sàngam may laaj ndax Omar Youm dafa jàngul woon ne loolu moo nekkoon kii bi wala léegi lan moo tax muy waxe nii vraiment koo xam ne dañ la teg ay responsable kii la tey boo nee dafa weex tey bu subaa nga xëy ne dafa ñuul ci xam-xam waxuma ci jikko de waaye ci xam-xam wax dëgg yàlla loolu jikko moom mën na loolu waaye xam-xam nanguwul loolu nanguwul nga ne dafa weex tey suba nga ne dafa ñuul mu taxaw ne loolu man awma ci fenn fu ma ci kii nan dem ci àtte bi ndax ñun deux mille nangam bi ñuy dem ci Ablaye Wade dan ne woon dan doon xeex troisième kan waaye bi ñu demee ba conseil constitutionnel jox ko kii danoo dem ñun campagne pourtant bi ngeen di laata campagne bruit bu rëy am na bruit bu rëy am na booba ngeen président Macky Sall 2016 mu ne dafa bëgg a limiter kon lekk kay jëratut président Macky Sall di wax limiter kon kay moom na toog rek heure bu ko sénégalais yi wàccee nga mu a sénégalais yi ñooy fal su demee suñ ko nee nangam mu wàcc. kon koy léegi nan bañ a limiter mandat yi ñu ne léegi ku nekk toog fi rek bu ñu demee ba askan wi doyal ci yow ñu wàcc la beneen bi mu waxaat nag bu ko gën a garaaw gisuma ko danoo xool ne réew mi dafa am pétrole te ak xam-xamu président Macky Sall fi mu toll ci xam-xam moo tax ñu bëgg mu mel ni benn sénégalais benn président Macky Sall rek moo xam xam-xamu pétrole moo xam xam nga liy wane ñàkk euh, wax dëgg yàlla euh, liggéeyal sénégalais ak di di di dox ci xalu sénégalais yi mooy bi nu waxee ne Sénégal pétrole feeñ na feeg léegi amuñu benn sélection bu nu jël ci xale yii fi nekk ne nañ leen jàngali. ñu xam pétrole nan lañ koy seeree lan mooy rôlu pétrole ci am réew bu fi ñëwee rawatina gaz am fa am lu dut ñu naa benn président Macky Sall rek dafa jàng pétrole ak lim ci xam kon du ñu bàyyi affaire bi nangam loolu lu ko gën a doon erreur amul jàpp naa ni ñu gën a xam président Macky Sall pétrole ñi ngi ci biir réew mi te du président Macky Sall rek moo yeyoo toog ci réew mi di jiite jàpp naa lool sax du wàllu état diw moo xam nangam mais diw am ko war a jàppale ci diw sangam. te pétrole bi li ci borom xam-xam yi tàmbalee wax lu ci nekk lan ci am santage bi ci am bu tuuti la taux bu tuuti la ci xaalis loolu jàpp naa ne bu fekkee mooy xam gi rek jàpp ne jàppoon naa ne pétrole bu amee dafa war a wax ne bu ñuy ñëw situation Sénégal yëpp ay sensé bu demee nangam beneen bi ci des mu wax ne président Macky Sall kenn du ko wax ne ko amut bilan loolu dëgg la dëgg la. ndax président Macky Sall ñi ko xam bu yàgg ba muy nekk ci Ablaye Wade sax ñëpp dañoo xamoon ci moom ñaar xamoon ci moom ab yar xamoon ci moom nangoo liggéey ba fii mu agsi tey nangoo liggéey ak topp ndigalu kilifaam moo ko fi indi beneen bi ci desaat Sénégalais yi nga xam ne ñoo faloon président Macky Sall ñoo nekkaat tey ne ko li nga nu waxoon jot na te moom waroon na composé ñaar benn bi benn niwa doomu aadama la ak niwa kilifa président moo taxaw ne te journaliste bi laaj na ko nekku bii mooy sama dernier mandat su ngeen ma falaatee bii mooy deux mille dix neuf bu ngeen ma falaatee mooy doon bu nu àggee deux mille vingt mooy doon sama dernier mandat loolu li ko président wax yaakaar naa Mimi Touré da koo répété répété ba kenn xamul nu mu te booba yaa ak Mimi Touré yi ñëpp Mimi Touré Pape Alsa Pape Ale laaj na ko mi ture mu ne ko mënul nekk mu laaj ko ministre bii fi nekk Ismaïla Madior mu ne ko kenn mënta Euh, ki ñuy wax premier ministre ba fa nekkoon di buñ jonn dafa wax ne moom sax nekk naa damay àggale samay tabax samay sànc loolu boo àggee loolu mën a tuta nekk dëgg-dëgg wax dëgg yàlla bu nu toogaatee président wax ne da ngeen ma koy ñaan moom mu boppam mu wax ne ba ñuy wootee 2016 référendum yi ndax est-ce que troisième mandat ci la bokkoon moom Omar Youm mi jàpp naa loolu wax dëgg yàlla Omar euh, yaa ngi jënde sa xam-xam lu ko jërul ndax xam-xam dafa am lu koy suuxat mooy ay valeur ak ay jikko mooy suuxat xam-xam boo demee ba xam-xam nag ay jikko nar koo màbbu jërutul woon jàng ay jikko wala ay intérêt nar koo màbbu jërut woon wax ne fii politique bi dafa am lu fi dugg ay 2017 xaw wala nangam ci jamono yi lim ci bëgg a wax lu leer la nee na am na ci ñoo xam dañoo bu njëkk xamuñu woon kilifa di wax ñu koy saaga wala ñuy tiktok wala dara gaa dëgg la moom jàpp naa ne wax dëgg yàlla xool naa fii ku président di añandool di ko recevoir di ko def interview te ñëpp a mën a taxaw ba première daam dafa taxaw ne ko yow lu tax nga daan saaga président mu ne ko booba xale la am na keneen koo xamante ca réew la nekkoon di saaga Ablaye Wade wala di ko bi mu dikkee ministre lañ ko def ci ministère bi mu ànd ak mu nekk ministre boo ko doon tudd kenn xamul nu toll kenn kenn xamul nu mu toll député gi muy wax sax euh, ki nuy wax ma Macky mu nekk député jàpp nañ ne li ko def député du ay xam-xam du ay valeur du dara lu dul saaga la ñëpp considéré ne moo ko yóbbu assemblée te ba mu demee it wane na ko fa ku wax mu saaga la beneen bi ci desaat nee na saaga yooyu xam nga ñi fi bëgg a indi diine ju bees ñi nga xam ne ay ibaadu lan am na parti boo xamante nii moom leen gën a féete kon loolu itam jàpp naa ne du du wax de yàlla du wax yoo xam ne ci Sénégal fi mu toll nga bëgg a ay nit ñu yor ay association ak i tarixa diw moo ëpp ca parti sàngam nangam ay yeneen diine lan fi indil ak yeneen kii yooyu boo wóoroon di nga gis ne ci ci parti sàngam lan bokk ne ko demal nga def sa liggéey nga dem war waaw murid yi ëpp ci parti sàngam nag ndax loolu kon sikk la war a doon wala du sikk mu tijaan yi ëpp ca parti sàngam nag Euh, ibaadu yi ëpp fee ibaadu yi ay sénégalais lan ku nekk Sénégal segam am na ku ku mu neex koo xam bu ko neexoon du am benn diine am droit dugg ci parti bu ko neex wa dëgg yàlla ki doon ibaadu bu xoolee ne parti sàngam moomu gën a doy am na droit dugg ci waaye bul ko jiiñ ne ñooñu ñoo fiy saaga wala ñooy saaga kilifa yi wala dara jàpp naa loolu du woon rôle am dëgg-dëgg fi mu toll ci niveau di wax ay nit ñoo xamante ni dafa am lu ñu gëm ci seen diine seet benn candidat bu ñu gëm ñu ànd ñu ne ñooñu ñooy kii loolu naa ne beneen bi ci desaat nee na man duma joxe sama wii ci ay troisième mandat ay nangam man daal nanu dem Sénégalais yi bu fekkee lool la ñu xool kan lañuy ñuy woteel ak kan te li mu bëgg a wax parti Pastef ku nekk xam na ne la fa am ci ay doomi daara parti bu am ay doomi daara yu fa bokk mi ngi soog a am mooy parti Pastef te ñëpp la selection sélectionné Tidiane baadu yooyu muy wax ak ñeneen ak ñeneen ndax li nu gis ci kii bu fekkee wàllu diine dong lañu wiise li nu gis ci ngóor si ci wàllu diine wal na waxaat na ne euh, site bote du suur boo xam jamono yoo xam ne couvre-feu la ñu jox la euh, benn droit ngay dem ci xale boo xamante ni nangam nangam ba indi àtte bi Ousmane Sonko bu fekkee ne te waxoon na ne demu fa ba ci yàgg mën a dem na fa loolu moom ñëpp ko d'accord loolu Ousmane Sonko wax na ko man nag loolu loolu. bokkut ci li tax ñuy nit ñi di tànn Ousmane Sonko ak di fa dem usman Sonko wax ni li génn ci Ousmane Sonko euh, àgg na ci xale ak àggut xale loolu taxul nit ñi di ko tànn leen koy tànn ndax mën naa doxal mbir mi ak procès bi mu wane. loolu mooy sikk ndax dem ci foofa dulu araam boo ko teewul nga mën a yor am réew tamit jàpp naa bu fekkee loolu euh, kii yàq la ak walla kii na am na loo xam ne ñoom ñii def moom mii waxoon na ne troisième mandat mënta am léegi waxaat na lii. léegi kon xanaa waxam moom daa war na lijjanti liyam lii moo gën a itteel muy lijjanti Ousmane Sonko mu ne woon demuma fa ba jikk jëkk ne dem na te moom vidéo yi dafay far nekk sax des fi lépp naa daal vraiment dangay ngay yëg ne daal da ngay yëg ñi la jiite ne ñii seen i intérêt moo leen fi bàyyi wala intérêt Sénégal seen i intérêt dëgg-dëgg booy xool moom fi mu waroon a wax ak lim nekk avocat ak nangam nit ñi kenn corrigé wul président Macky sàll ci wàllu Oh, kii li nit ñi wax kay wala tëg di ko gën a jooytu mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey te kumba yëpp am ndey sax xanaa mel ni mi ndeyam dafa dee mel ni mi ndeyam di dund waaw loolu la ñuy wax waaye nangam moom jàpp naa en tant que lii mu kii euh, ñu ne ko nii Ousmane sonk comme nii nu ko def nangam mu a réew daal dafa war a am xam naa tontu yi wax daal doo ko mën a kii ndax ginnaaw layalu ko lay bu kii waaye Ousmane da nga ciy dellusiwaat yëg ne. boo jàngee nattoo di kerkeraan <laughs> da mujj nga ne Ousmane Sonko mi am na lu nekk ci moom ndax booy jàng taarix taarixu lislaam da ngay gis ne Ousmane bokk na ci yaxaloon alxuraan maa ngi fàttaliku ñëw bi mu ñëwoon Ousmane Sonko ñëwoon fii kaamilu alxuraan lan ko bindal fii te Ousmane moo bindul woon alxuraan dajale ko boo xoolee nii nu ko def ba nii nu ko def nii rek boo delloo ca. wala falu sëñ Moussa Kaba ba mu cay wax na gaw nan këram ga arbaxiina yow ma wa lii doy na fitna doy na fitna doy na doy na fitna ah, doy na tuuma te noonu la ca wolofal ba dama xamatul nu ko ca waxeeti eh, ca wolofalu sëñ Moussa waaye li ma ci bëgg wax rek mooy eh, nii nu def Ousmane song nii defoon nañ ko Seydina Ousmane bi ñu ko yëgee danoo kaw këram ay ay maanaam quarante suur quarante suur gaw nañ kër ga arbaxini yow ma wa tisxata doy na fitna doy na tuuma doy na waar waaw doy na jàpp naa lu ci mën a am rek maa ngi jégalu bayru tiim ma ko waaye ku delluwaat ca euh, la nga xam ne mooy nattoo karkaraan di nga xam ne nii nu def Ousmane Sonko nii defoon nañ ko kër Seydina Ousmane gaw ko ñeen fukki fan ñeen fukki fan bu Ousmane bi na ko ma dina mat ñeen fukki fan wala du ko mat waaye daal xam naa lu mën a am rek yal na ko yàlla sàmm daal te delloo réew mi ci jàmm ndax daal jàmm daal mooy bénéfice mooy lépp lu nit di am te jàmm nekkul la ca ëpp la ca duubulte li nga am doyul li nga am doyut waaw ñu ngi ñaan yàlla def nu may nu wérug yaram ak wérug diini yaatal suñu wërsëg may nu mujj gu rafet salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Tanim TV.